lii ngeen def nag liggéeyal ngeen ko liggéeyal bu rëy boo xam ne kenn boo boo boo boo war de sax ba ngeen ko liggéeyal ci teewam. li nga wax liggéey bu rëy ngeen ko liggéeyal. jamono ji jamono ji jamono ji ñu ngi fii fu ñu leen toog liggéey bu ñu ngi ko liggéeyal boo xam ne bu ñu dëkkoon na moom ay ay ay at yi at yi at di ko liggéey itam la la la la la mu ciy jógee ci yoon liggéey ci mënu ko wax may na dara du ci jógee ci wàllu ñu ngi doon dara du ñu dara liggéey bi ñu ko liggéey fii ñu ngi ñu ci ñu dëkk ko mën ko ci liggéey bii ngeen ko liggéey lu muy jëriñ booba moom dara yem ci yëf ba yëf yëf kon ñun xam ne noonu liggéey ngeen ko liggéey bu nii xam ne day xam ne jëriñ xam ne jëriñ jërëjëf Mbacke Mbacke xam nga loolu ñu ngi ko defal rek ko mën a may. jërëjëf Mbacke. loolu mbokk naa ci. wax naa ci yéen. am na liggéey bi ñu ko liggéeyal nag. fan yii. liggéey bi ñu ngi ko ko ba noppi. seen tawfeex la. waaw léegi ñu ngi lay tàggatoo ak ñu mën la. liggéey boobu ñu liggéey ba noppi nag. yére di dugg ci islam di dugg ci Serigne Touba liggéey boobu nga koy fekk ñu ngi koy ñu ngi ko noonu liggéey boobu am na lu ci jóge di ko ci fekk mënu ko dugg da koy ceeg dara maanaam su boobu jóge ci woon coobare bàyyi mu fi leen mu nekk ci ren nekk lu aw jàmm. yàlla dañuy bind di jaar ci bind mu ngi jaar mu ëpp di

nekk ca loolu rek ñun ñun xam ne ñoo ngi ay jàmm la ñoo ngi jàmm. wax naa ko ba may ñëw damay ñëw ngir seer si dem seen diggante am ndax bu ñu diggante dëggutoon sëñ maa joxe dig ci loolu waaye yaa ma yaay joxe diggante. jëmm daa ko doon woor am na ko wax. jëpp mu ko gëpp boobu mu ko wooyee. ñu ngi topp. ñu ngi topp mais seen xel 저, 엄청 성투할. 근데, 낙낙한, 낙낙이 낙낙한, 아주, 살찌는. 물론 뭐, 어디를 내려가고 좀, 내려가고. 아, 근데 너무 위에고, 내게, 내게, 내게 비운 거는 게요. 음. 아, 어떤 거예요? ndigal li ma leen di jox ngeen jëfe ndigal loolu mooy liggéey bi ngeen ko liggéeyal te mu amal ko njëriñ te mënu koo ceeg dara ma dëgg kii ñu leen ci nekk itam ma di njëriñ bi njëriñ bi la ko jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke te amal ko pas-pas rek di ko ñaaral ñaaral yaa ngi ci sax ba léegi nañ ko ñuy def saa saa woon dañ leen di jëf ñu si seen seen lan seen jëf dañ ko ci ñaaral jërëjëf ma ne ma ne ndigal li nga joxoon ci moom bi ne day jëf topp ci ginnaaw bi waaye tam day watt leer ba xam ci yow waaw noonu la def noonu la def kii kilifa dafa mën na nekk te it am na bu nekk xaw ma am ku jiitu moo tax loolu incha allah tuuti na ci yéen waaw xel daal na ci yéen gis naa ci ci ci sëñ Tuubaa yar boobu rek moo la ci yéen. bu dégg waaw yar boobu rek moo la ci yéen. xam nga loolu la. dëgg la jërëjëf. kon kilifa bi moom itamit dinaa ñëw rek gis ci wàllu jafe-jafe ci coono. yàlla moo moo moo moo moo leen moo ko booleel ak ñu bett ñu. booleel bi am na boo noppi ñu ngi fi ñu ngi fi. di jaamu yàlla ñu ngi nekk ñu war a nekk war a jaamu yàlla. Hmm. نحن هنا في السيد بس وصلت المدرسة التي هنا في يعني قل بفضل الله الماء جيت جيت وخمد وبك سين كلام جيت جيت باي كلام كم تكلم يا رب ينفصل أنا اليوم أنا كنت بسلام كنت بسلام دي ليسن كم تكلم 제일 좋아. 응. 제일 좋아하는 거지. 예? 네, 네. 네. 이거 떡집나. 뭐? 로레클레. 로레클레. 로레클레. 이런 집에, 이런 집에 있는데 뭐로? 이런 집에 같은 게 있지. 알hamdulillah. Ajak sembah. Ya, ajak sembah. Ajak sembah. Ajak sembah. Ajak sembah. Well, sometimes we, we say something about kita kayak bro. Selain itu, tahunan lo, tahunan di tahunan cuma. Dapat macam mana? Tahunan di, ada mati di kelebihan sini. Tahunan di lain, ada something lo ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Sampai lakukan orang mengkritik, mengkritik, mengkritik. lépp wax naa ko moom kon ñu dëkk bi lépp yow yaa tàmm li nga amee. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. kii ci biir diggante rek. am na lu ma wax njëriñ li ba rafet. te ñoo ne ma sama cant bopp gën a la sant. ndax waaw gi ñu woon ngeen am ngeen ngeen gën a wuyu si fa ak man. ci li ci li ma leen woo loolu am na amee nañ benn cant bu rëy boo xam ne ci benn bés. jërëjëf jërëjëf. waaw mbak jërëjëf. jëf jëf Mbacke. jërëjëf Mbacke. góorgóorlu nañu baax rek. nañu góorgóorlu bu baax bu soobee rek. jërëjëf góorgóorlu ba suñu kenn kàttan rek. jërëjëf baax Mbacke ñu ngi sant bu baax maa ngi tudd. bii sabiinatan bi kulli jannatin min daarihi liman ya'qil minna. bii sabiinatan bi kulli jannatin min daarihi liman ya'qil minna.